vidéo bi yàgg na yàggut waaye mën nañu sukkandiku ne Ousmane Sonko ndaanaan la mës a doon ca France la woon mu wax ay vision yu yàgg yoo xam ne tey jii ñu ngi koy dund ci Sénégal ni mu war a demee waaye ci xam-xam bi nga xamante ne am na ko ci wàllu politique mu wax ci Macky Sall ci li nga xam xalaatam bu gàtt ci mu am ci Sénégal loolu lépp Ousmane Sonko wax na ci vidéo bi liñ ciy décortiquer wala sax liñ ciy jàngee mooy Ousmane Sonko ku bëgg réewam la juddoo ci réewam màggee fa jàngee fa waaye nag xeebul boppam xeebul waa réewam moo tax nag mu bëgg waa réewam jël seen destin en deux mains looloo ko yóbbee mu tayle boppam këram njabootam liggéeyam bakkanam ba tey jii ma nga ca cap manuel waaye nag lépp luy dox ci jamono ji ci Sénégal ci wàllu politique ci lu mu mën a doon ci wàll lu mu mën a doon mënuñu ñu te génnee ci Ousmane Sonko. am ba des daal mooy Ousmane Sonko day falu baa mu fale. loolu moom xale yi dooru judd sax xam nañ ko ñëpp rek ñu ngi bénéficié ci turam ñëpp ñu ngi xam mbootam yi nga xam ne sunu borom làmba na ko ci biiram nga xam ne journaliste yi duñu xëy kenn te bindoo Ousmane Sonko wala waxoo ci moom lu xew sax ba ci may mënu dul fay li xewoon nga xam te ne am na ci ay opposants dañoo gaaw di wax ne yàlla moo ko def ci moom ku bëgg rek na nangu dogalu suñu borom ba tax na yéen ñi bàyyi xel seen seen préféré seen njëriñ TV ñu àndandoo ñun ñëpp rek lu vidéo bi nga xam te ne Ousmane Sonko wax na ci lépp. lii nga xam ne mooy manque de vision président Macky Sall nga xam ne depuis le début dafa juum totalement ci priorité Sénégal moom jàpp na ni priorité Sénégal nañu fexe ba Sénégal yi naan Macky Sall de bi mu fi nekkee président dañu am benn train boo xam ne. boo ci duggee day mel ni yaa nga Paris te boobu jamono sénégalais yi lekkuñu ba suur sénégalais yi jànguñu sénégalais yi fajuñu su dul woon les transferts des émigrés njaaxum am Sénégal kon de manière beaucoup plus stratégique lii mu dugg te ñëpp xam ni baaxul te le dugal na ci Sénégal ci bor goo xam ne

2024 kuñ fi munti fal boo non ab wali wala ab yonent sax bo moytul di nga suux ak système bi wala sa sa mandat bi yeb fay ay incendie nga fi nekkee kon limu wax kérok né problème bi du ñun man Ousmane Sonko nguur terew nelaw man damay faral di wax ni damay faral di wax ni man damay tok ba si mané man est-ce que bëgg na nekk président de la république parce que man li ma bëgg mooy ñu dans une équipe qui change le Sénégal je dama ñëw lancer un débat ci parti bi ne leen régime présidentiel je crois que régime parlementaire est le Sénégal parce que institution présidentielle niñ ko tëggee dafay créer ben waay boo qui ne c'est un intouchable mu toog ci kaw mën def lu neex te rendre compte à personne dañuy créer benn waay boo xam ne jox nañ ko fonds politique jox nañ ko budget may nañ ko mu mun a dem leb ci turu Sénégal may nañ ko mu am sañ-sañ jëm jëm ak jël alalu Sénégal muy ci napp gi muy ci mbay gi ba ci suuf si léegi le foncier joxe ko te kooku nee nañu il est irresponsable mooy à part haute trahison bi ñu bind ci constitution bi mais haute trahison ça veut rien dire parce que amul benn texte de loi voilà la constitution voilà la doctrine amul benn définition bu définition joxe trahison ba paré règle pour que ñu mëna mettre en euh, la responsabilité du président de la république mettre na parce qu'il faut une juridiction spéciale il faut une procédure spéciale tant que nak dindi wuñu ko quel que soit la façon dont nous koy dindee mun baye présidentielle mais wàññi dooleem bu baax a baax a baax rééquilibrer les pouvoirs wala ñu dem sax vers un régime parlementaire encadré nga xam ne kii nga xam ne mooy jiite far sax ñu tuddee ko premier ministre ñetti yoon ci weer bi war naa ñëw assemblée nationale défendre sa sa vision défendre son projet député yi wax li ñu xalaat askan wi yëpp toog di gis xam naka la ñu yoree seen réew kon c'est pas une fixation sur une élection wala dama bëgg président wala parce que ku xam est responsabilité président nous nañu ndaw la ñu ngi parce que rien n'a wax de ku ko bëgg il faut nga ses cartes tout nous ndaw gi ku xam dëgg dëgg dëgg la responsabilité bi tegu ci du kuy jiite ndax yemul fii àdduna kese de il faut ñu modifier constitution bi pour que fii àdduna à côté par exemple la responsabilité euh, euh, la responsabilité pour haute trahison la responsabilité pénale ñu mën a dugal li ñuy wax la responsabilité politique ba nga xam ne dinañu am un pouvoir de destitution du président de la république fii France dugal nañ ko depuis 2007 barki démb euh, présidente Brésil bi looloo tax ñu ko mais en à côté de ça li may wax ça vaut pour moi ça vaut pour keneen koo xam am nga aspiration de dama bëgg a jiite suñu responsabilité bis boo jiitee yemul parce que 15 millions de sénégalais yi nga bis dina ñëw nga taxaw sa kanam borom mu ne la naka nga defoon ak ñom lolu nak lolu nak man ndaw mi xam naa ko waaye am na ay màggat yoo xam ne defe naa ñoom a gën a jege fi mu ne nii dem beneen côté bi yàlla nag mooy jël saay ko neexee waaye xamuñu ko ndax seen àdduna yépp dañoo nekk ci état rek di sucer le peuple koo ci gis milliardaire la seen i doom jàngewuñu Sénégal ku ci karawam métti sax nga jël avion faju ji France ñooñu xamuñu lan mooy responsabilité jiite kon enjeu bobu moy suñu enjeu 2019 loolu nak daf ñu wara jaral ñun ñëpp ñun ñëpp ñu sacrifier pour une fois kenn ku ne ci ñun am na ci responsabilité la ci suñu responsabilité ñun ñu jël initiative yëkëti projet bu melni passif Pastef buñ bu yëkëti matu ñu won 10 ci benn salle ñenti at lañ ci tek tay ay milliers lañu wala ay millions ñun. Nous avons ci responsabilité chaque jour nous n'avons pas le droit de trahir cette confiance nous n'avons pas le droit parce que si les Sénégalais si les Sénégalais enregistrent une nouvelle déception c'est fini pour le Sénégal kenn gëm et je peux vous rassurer que lolo, bis bu ne moom parce que nous savons la responsabilité qu'il y a sur nos épaules Voyez, lii responsabilité kenn ku nekk ci moi, mooy mbir ne nekkatul rek nga ne gëm naa mbir mi kii de moom laay sama carte wala gëm naa mbir mi maa ngi dem bindu Pastef waaye li suñu responsabilité chacun d'entre nous c'est une responsabilité chacun et chacune mooy dinaa xar sama tànk tubéy te nag wane ngeen ko déjà parce que bi ma commencé dem ci diaspora ba léegi mosuma jënd billet d'avion yéen a koy jënd mosuma joxe fukki dërëm pour louer une salle mosuma louer hôtel bu ma fanaan loolu c'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal li muy wane li muy wane mooy ma wax nii am ngeen yéeg-yéeg bi ba pare mais dañuy soññante rek mooy luñ ci doon def rek ñetti weer wala ñaari weer et demi moo des nañ ko multiplier par dix xam ni benn yoon lay métti mais suñu yàlla mayee ñu yegg fi ñu bëgg a yegg ba won Sénégal lay ni liñ leen wonoon ci politique du lii mënoon nañu am lu gën lii depuis longtemps je pense que bis buñ ko defee chacun et chacune d'entre nous qui nous connaît ci ñun a la fierté au crépuscule de sa vie d'avoir été porteur de ce projet qui a changé définitivement le Sénégal. kon lolu moy li ñu bëggoon wax ci gattal wax ko ci tubab teunk ko ci wolof tuuti di len wax nak ni waa organisation bi ñu ngi leen di invité it defe naa dañuy def euh, dîner de gala bu ci kanamee ñu ngi may wax ma feddali invitation bi ñu leen ci invité ñoo leen gërëm di leen sant di leen wax ni nañu gëm suñu réew nañu gëm suñu réew nañu gëm suñu continent parce que ñii ñu fekk ci fii ni ñu def ba seen réew mel nii bu ñu defee noonu suñu réew gën a neex lii parce ay discours am saa su nekk day défendre nit ku ñuul waaye day défendre Afrique rawatina réewum Sénégal bi nga xam te ne moom Ousmane Sonko fa la juddoo yaroo fa kàddu yi mu yëkkati yàgg na waaye dafa mel ne tey jii la Sénégalais yi ci boppam war nañu jot na sax ñu xam kan mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko day jeune sénégalais boo xam ne dafa juddoo ci réewum Sénégal waaye juddoo fi am jomu jàng xam boppam. ñu yar ko ci diine waaye yar googu ñu ci yar ci diine loolu dem na ba tax na du jël alalu jàmbur ndax loolu seere gi mooy impôt yi domaine gi nga xam ne nekk na fa fukki at ak juróom maanaam quinze ans te kenn mosu koo jiiñ dara gerut kenn geru ko corrompul kenn corrompul ko maanaam wàllum corruption ak ger loolee moo tax sax ñu dàq ko foofee rajee ko illégalement ndax it danoon dénoncer ay fait loo xam ne baaxul ci réew benn nit bëgg jël ay milliards aakimoo ko bëgg jël ay terrain yoo xam ne mën nañ ci def ay hôpital ay université kenn nit rek parce que inspecteur des domaines la mu mu mu trahir peuple bi ndax dama jàpp ne bu fekkee dafa am post yoo xam ne da nga jàng ba yàlla def nga toog toog fa muy poste boo xam ne da nga war a saytu lu réew mi ñoŋal ko xool ko ba kenn du ko mën a salfaañe wala kenn du ko mën a jël ci anam boo xam ne ligaalul yow boo amee koo xam ne mu ngi saytu alal jooju ngir kenn nit bañ koo lekk ndax lu ñëpp bokk la moo tax Ousmane Sonko ne jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci alal ji nga xam te ne askan bi ko moom séddale ko ci séddale goo xam ne day am équilibre dañuy maandu ci séddale bi ndax it bu fekkee ne lu ñëpp moom kenn rek du ko lekk loolu moom ci boppam jar naa saytu waaye jar na kookee Sénégal wala askanu Sénégal dal ci kawam Ousmane Sonko nag loolu moo ko yóbbee ñu ràjjee ko 15 ans yi nga xam te def na ko impôt domaine te ñëpp ba tey way woowu du mës a fay ndax it yaruñu ko ci jël yaruñu ko ci lu ñaaw diine nag moo am solo te jiitu na ci moom loolu lay prôné ba tax na bu mu jógee rek ne day politique rek ñu ne ibaadu la maanaam jàppee ko ne gëmul dara te ibaadu mooy jaamub yàlla te ñu ñëpp ay ibaadu lañu te Sénégal problème mu xeet ki waasoo ki diine tarixa loolu daf koy bëgg yàq ndax yàlla ci boppam ki gën a tedd ci nit ñi muy ki gën a ragal yàlla kon fexe ba ragal yàlla moo ëpp solo fexe bay def loo xamante ne du neex yàlla Ousmane Sonko nag ci politique am politique bu radical la teg ci Sénégal politique bu xamante ne dafa ñëw rek ñi nga xam ne dañ fi nekkoon depuis 1960 wala lu ko jiitu muy système boo xam ne ñoom daanaka fi ñu toog ci fauteuil bi bu ñu fa jógee seeni doom ak seeni i jarbaat ak seeni i mbokk ñoom kese kese matuñu cinquante personne ñu diriger Sénégal ci anam boo xam ne dara baaxu ci. ñoom kese ñooy am ñoom kese ñooy faju ca hôpital yu cher yi nga xam te ne ca bitim réew la ñoom ñooy dugg ci jet privé yi ñoom ñooy am passeport diplomatique waaye ñoom nag ñoo ñuy divertir. di ay comme nous teugal ay lamb diñu diñu organiser ay concert euh, diñu def lo def lo lo xam te jeunesse bi ci bopam dañuy jeunesse bu inconscient Ousmane Sonko nak dafa ñew fekk jeunesse bu inconscient c'est jeunesse bu ñuy divertir fekk jeunesse bo que nous xamul sa ay ressources naturelles Ousmane Sonko taal xel ba kenn ku ci nekk xam lan ak naka la Sénégal wala lan moy richesse nous Sénégal bu ci walu droit tooñ gi ñu ko tooñ bunu xataal ko teg ko ay daan yoo xam ne dara du ci dëgg dem na ba tax na sénégal yi kenn ku ci nekk xam lan mooy yoon xam lan mooy justice xam lan mooy magistrat xam lan mooy juriste xam lan mooy avocat xam tamit bu jalgatee nan lañ ko mënee édifier man nan lañ mënee saytu ba xam ne kii magistrat bi li mu def tegu ko fenn te demuñu fac droit loolu nag ci endurance bi nga xamante ne ànd nañ ko Ousmane Sonko jeunesse bi. ak patience bi nga xamante ne mooy tax projet bi àgg ca pale te pale boobu nga xamante ne moom lañu bëgg àggale projet bi du doog fa comme ni ko Macky Sall toogee di buum di buum di déedéet nekkal fa askan bi waaye nekkal fi baadoole yi waaye nekkal fi ñëpp ba nga xamante ne Sénégal day doon Sénégal gañ doon wax dëkkum teraanga ñu ànd ko nag ci jaamu yàlla ànd ko ci bañ a yàq waaye ànd ko ci ñëpp yam bien benn pied d'égalité mooy sénégalais bi nekk ci àll ba ak sénégalais bi nekk ci biir ville bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la nga war a am faw mën a nekk dana la fa fekk vision bu rëy boobu nga xam ne moom la projet Pastef làmboo làmboo ay ay ay ay ay njariñ yoo nga xamante ne yow mi bokkul Pastef sax jàppal ne loolee ci nga bokk ndax it pour le Sénégal la pour l'Afrique ndax it jël nañ Sénégal vision bi moom Ousmane Sonko vision jël na Sénégal loolu nag war naa tax kenn ku ci nekk ci campagne bi ñu war a dugg ak lu mu gàtt gàtt campagne bi def nañ ko ba noppi ndax sensibilisation bi yàgg na depuis ba ñu depuis deux ñu ngi ci campagne.